leneen lu xew fële ca Touba mu mel ni euh, liste blanc bi mu nekk maire entre guillemets comme ni ko waa Touba di waxe euh, ab laxat ka du mu gañe bariwul ban commentaire ngay def foofu ca Touba nga xam ni foofu nga dëkk itam nekk fa itam euh, leader politique. leader religieux d'abord surtout Sëriñ Touba ba pare. taalibe d'abord ba pare ma ma sama baay ak sama maam ak sama sama sama bàjj. xoon naa la ko yow wala la ko yow mii je vous prends témoin vous-même personnellement wax nañ ci yàggul may la choix bii daal doy na wante nag erreur la ci ñu sanctionné ko noonu parce que sëriñ bi moom moom liste bi euh, xëy na xamewuñu woon noonu ne sëriñ bee moom liste bi jàppuñu woon ko noonu ndax Abdou Lahad Ka waaye nag code électoral bi moom sëriñ bi la nangul liste bi sëriñ bi mooy responsable liste bi wante bi yoon nag Abdou Lahad Ka daf ci def jëf yu jëf yu sew yu bëri sëriñ bee daan diriger liste bi moo ko daan defaral boppam boobu sax scoop la ma lay jox yow rek mais bi yoon moom moom moo ko def c'est lui qui est le responsable def ay affaire am ak waa Benno Bokk Yaakaar ñu def seen i affaire dégg ab laaj ko génn wante nag ci responsabilité sëriñ bi la toujours moo tax toujours leen nañ prudent ci bi parce que d'accord mu ci Abdou Lahad waaye dafa am worma bu ñu seq ak sëriñ Touba parce que mënoo yaakaar sëriñ Touba si bi ngay dund yaakaar sëriñ Touba si bi ngay dee ba noppi bu sëriñ Touba nga am nga am nga nga invoqué démocratie wala nga invoqué choix euh, liberté de choisir wala man dañu nekk liberté wala dara su boobaa kon démocratie bu duree que kenn ku nekk fële nit boo fa faatootee nga yam fa mais bu ñu la gàddu indil sëñ Touba donc kon nañuy cohérent ci suñu choix ñu wax ne aussi sëñ Touba way lañ gëm pour ëllëg mais tey fi ñu nekk nii kii moo defal suñu réew wala kii mooy defal suñu réew kii la ñu tànn dañuy nax seen bopp sëñ Touba da koy gëm at nag àlaxara wala nga bokk ok lam ñu waxoon rek moo maa gën ci yéen seen ndey maa si ci yéen seen bàyyi c'est ça la vérité parce que moom moo ñu jàngal yàlla moo ñu jàngal moo ñu teg sat loolu la ñu gëm dañ koy gëm mbaanu baax am na Abdou Lahad Ka pose problème effectivement ci ñi nga xam ne seen xam-xam ci jàngat boobu la yem parce que koo xam ne fal nañ la ñaari juróomi at mu fukki at ci biir fukki at yooyu budget mairie Touba quatre milliards neuf cent ba ko Sénégal di attribué yoo xam ne bokkul ak màggal li nga ci am ci ay milliards yu bari yoo xam ne kenn mënu ko wàññi parce que kenn xamul lu mu toll ay centaine de mille la benn affice bu nekk di fay oto bu ñëw bu yëngu ci jaay ak lu mu a doon ci opérateur ci ndox ci lu ñuy lekk ak lu mu a doon la ngay fay xaw ma nu oto yi toll affiche yi ñaata lay toll ci dëkk ba xamuma ko par journée dañuy luyee xaw ma ñaata par vingt quatre heures ba Touba daj ci tali boo jaar yàlla rek xam nu toll ci di milliards ci milliards et milliards kenn mësu ko inspecté kenn mësu ko euh, mësuñu yebal benn contrôle benn corps de contrôle de l' pour xam nan la fa demee parce que bu amoon ñëpp créer scandale donc yow yaa yor te amul mbedd moo ne Abdoulaye Ka ko defal amul éclairage buñ ne bii mairie bi ko fi def. la fa nekk ko fa def. mais la fa nekk ci laay ñëw. lu fa sëriñ ba deful rek Touba ko def ak peut-être tuuti ci assainissement. bu dul loo fa gis dañ naan tali bii talib sëñ Baara tali bii talib sëñ Sadio tali bii Touba Ca Kanam ko def gën a gàtt wala ab travaux. wala ma travaux sax yàgg na tamit wala forage yoonu mairie Touba nekku ci. oto oto ci tamit sëriñ dina ko jiitalaat. non dugguma ci choix sëriñ bi dugguma ci choix sëriñ bi de damay commenter li ma gis li ma fekk réalité bu kenn du dindi ci àdduna. oto buy jël salte yi ci biir sëriñ sax Abdoulaye sax def ko ci quatre milliards neuf cent jox naa la exemple léegi ne la Touba bi amee inondation deux mille treize ba am quatre ba am quinze morts ba xalif général des mourides génne deux milliards CFA Abdou ab Ka dafa génne un franc covid bi passé loo dégg da ngay dégg sëriñ bi bi rek mooy joxe cinquante millions mooy joxe deux cent millions bu famine amee presque ci sàcc yu mag yi wa Touba sëñ bi mooy génne parfois deux cent millions plus souvent plus régulièrement di jox nit ñi ak di jox daara yi sëriñ Touba rek mooy def loolu te li Abdou Lahad Ka liggéey du lu muy versé ci sëriñ Touba du lu muy versé aussi ci compte Serigne Touba bi nga xam ne te la ñuy defar maanaam grand projet yi kon léegi xaalis boobu nekk des dizaines de milliards annuels anam ñu dund ak moom loolu fukki at xam ko mu xam noonu ñëpp xam ko mu xam ñëpp léegi ñu ñëwaat nag ñu bëgg faat ko faa tegaat ñu bëgg faa tegaat boppam sax parce que ay mën na pour la on a compris bëgg faa tegaat boppam yeneen juróomi at kon tegu fa boppam parce que sëñ bee koy validé xëy na waaye nag waxoon naa la ko fii am na nu muy demee noo xam ne sëñ bi du dugg ba ci détail yi ba ci biir fàttali juróomi at ak fukki at mu fukki at ak juróom ak njaam daal di dugg parce que sëñ Touba ñu nga dëkk ca dëkk ba parce que dëkk ba tàkk am na jàmbur yu bàyyi seen kër maam fa seen maam dëkkoon fii sëñ Touba gën a dëkk dëkk gën a lël ñu dañ fay gis seen bopp ñu ñëw ñooñu bu ñu réclaté réclame ay démocratie li ñu war defuñu noonu dem nañ war a xam ne Touba kër jàmbur la mais aussi famille sëñ Touba ba fa nekk nga xam ne ci famille sëñ Touba la Euh, sëñ Tuubaa ju seen maam ak seen maami maam ñi sëñ Tuubaa ju seen baay ñoom ñëpp boo leen boolee ña nga fa te ba nag ñoo fa fees ñoom ñoo sanctionné Abdoulaye Ka parce que milliards yuy jën di jëm ci kenn benn nit te xamuñu fu mu dugg ci turu sëñ Tuubaa loolu mat na xoolaat te sëñ bi moom nit ku baax la koo xam ne seetul lu bari am amu àdduna intéressé wu ko bu baax moom lu mu am rek day jël joxaat nit ñi te gëstuwul leneen te it ci dëkk ba na muy demee xëy na tax ñu bëri mën ko ginnaaw ñu si bëri nag ci ay doomi sëñ beeg sëti bi ak ñu am rang boobu ah ñoom jël nañ ci interdiction montré directement que lii moom du ci ànd kon bulletins blancs yi Abdou Lahad Ka lañ visé ñenn ñi sax ne Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar mais en fait Abdou Lahad Ka lañ visé c'est ça la vérité mbaa boog quatre pour cent Abdou Lahad Ka lañ visé c'est ça qui est le cas et je pense que Abdou Ka su amee noblesse bi ñëpp wan ko ne ko bëgguñu la c'est la première fois ba àdduna am ak léegi soixante dix sept virgule nangam pour cent ci ci élection ñu lànk la mu war na yow beneen bulletin bu fi amoon koo xam ne ñuy parce que wane nañ ne d'accord ci choix non pour cohérence ak libéré sëriñ bi ak dëppale sëriñ bi ak waa dëkk bi ndax waa dëkk bi yëpp kenn ku ci nekk xam nga fu la sëriñ bi féete xam nga lu la sëriñ bi defal kenn jëndewul sëriñ bi kenn kon Euh, moom mu dégg message boobu mu nangu loolu euh, libéré sëriñ bi libéré Touba dimbalu libéré nu bañ faa indi confusion bañ faa indi confusion entre peuple ak sëriñ bi tànn donc yaakaar naa ne loolu message la bu ñëpp wax dégg naa ko dem ci yeneen kilifa na ko dëgg dëgg nag. ñoo xam sax jàpp ni bulletin blanc bi mooy maire bu Touba. déedéet xam nañ ne Abdou Lahad Ka lañ bañ ñëpp xam nañ ne moo fi nekk avant ça tafoon nañ dëkk bi affiche. pour ne ko bëgguñu la dix ans doo amaat cinq ans te waxuma bilan sax mais waxuma bilan de waxuma bilan nga ne ma moo fi def lii rek man laajuma bilan de xam nga lu may laaj loolu fi def rek lu mat cent mille francs donc euh, moo am war a am noblesse wu nag jëlee fa boppam balaa nag muy am beneen acte bu ñëwaat boo xam ne day gën a waar ñu naan tuubaale tuubaale te it dañoo bari noonu bari ñu bañ Serigne Touba ne ba léegi bari ñu bañ Touba bari ñu bañ spécialité bi Touba am ñoo xam ni continuer di xeex Touba ñooñu kon dañ leen war a bàyyi xel bu baax ba tax dëgg-dëgg Abdou Lahad ko te moom ci boppam bu dee taal yi bëgg Touba it war naa xam ne boppam jaralu ko lii ñu day gore c'est la vérité bi toppaatit mooy xale yi dëkk Touba ñu bàyyi xel ormay Serigne Touba wax naa ko waxati ko waxati ko Serigne Touba moom moom Touba Touba appartient à Serigne Touba. ba mu fay dëkk kenn dëkku fa ay gaynde la fa dëkkaloon ak i ak i bukki ak ay segg ñu dem bàyyi ko fa moom sëñ Touba Touba moo jiitu république bi moo jiitu indépendance du Sénégal noonu la ko comment bi reconnaître loon noonu la ko successivement commencé yor Sénégal da ko ba tey kon doo bàyyi yow fa nga dëkkoon sa dëkku maam nam meloon dana xel na dugg sëñ Tuubaa nga am ak sama am daw ñëw wala sa waajur daw ñëw ba na fi bëgg toog ba na fi bëgg a wax ñi sëñ Tuubaa ñi remplacé sëñ Tuubaa ne leen non lii moo baax wala lii moo bon loolu ay yaree diku la nañ ko moytu tey moytu aussi manipulation ak couper coller man couper coller du wax ne lii di wane dagg lii coller rek fekk rien que pour manipuler parce que ku dëkk Tuubaa ku nekk di xam ban valeur la Tuubaa am ak ban spécialité la Tuubaa am waruñu ñee kenn ci feneen fu mën doon waruñu topp benn leader ci tous lu wuteeg bëgg-bëggu Serigne Touba donc fokk ñu xam suñu bopp xam ne li ñu am kenn am ko li Serigne Fallou Mbacké doon naan li ñu am kenn am ko man loolu laa gëm te loolu laay dund li ñu am kenn am ko gëm Touba te jàpp Touba te xam na ne suñu intérêt ci Serigne bi ak ci ndigal li Serigne bi joxe loolu nag c'est valable pour Abdoulaye Ka dégg ko moom tam pour euh, libérer Serigne bi pour que ñu def ci jàmm te moytu manipulation bi encore manipulation bi bari na trop manipulation bi bari bi bari na. te it duñu jëmale fu gën ci ñun te ñun ñu jiital intérêt Touba te di jiital Serigne Touba mi ñu jàkkaar ak nag àlaxira